te boobu noonu euh, góor mën na la ni loo def baax na wala man bëgguma astuce non yi bàyyi ko mais bañu ko de c'est parce que daf kaa xamul wala peut-être que niñ koy utiliser moo baaxul. Mm-hmm. gis nga góor gu la ni. góor gu la ni dafa lu la neex xam nga man du may def dans ce cas là dama lay observer c'est-à-dire que du ma def li ma neex. dama lay observer di di essayer yu bari. parce que parfois comme yére rek pantalon yëpp sa taille la mais bi la ciy jot carrément il faut nga natt yëpp pour mën ko xam n'est-ce pas. Mm-hmm, mm-hmm. ce qui jigéen pour man surtout ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci mariage xamaguñu seen jëkkër yi lu ñu bëgg ba falloir que ñu def ñu def benn moment d'observation. c'est ça l'homme n'a pas besoin de te de te dire damaa bëgg fer c'est à toi de de de xam ni sama jëkkër dafa dafa bëgg faire. Mm-hmm. nan nga koy xamee su tayee nga takk faire. nga xool réaction am su ko mais bébé rafet na wala ah bii de rafet na wala ah beneen yoon xoolal bu gën a sew wala xoolal bu gën a dijj par exemple bu subaa ma takkal la euh, chaîne chaîne chaîne ndigg ma xool c'est-à-dire que premier mois de mariage yi pour man c'est crucial parce que foofu ngay déterminer sa góor fan la bëgg lan la bëgg parfois góor ne la euh, bëgguma jigéen buy xeesal. pourquoi perd son temps à l'observer góor ne la alors que tu peux lui poser la question mu tontu la dëgg. non no non pourquoi on devrait là de chercher mel ni. non on euh, gis nga li nga ni nga mel. non ni nga mel du ñëpp noonu lañ mel y a des qui sont pas expressives y de ces personnes yoo xam ne euh, du ñu wax li ñu bëgg mais ils te le font savoir dañ la koy wan am na koo xam ne góor goo xam ne raayal ko doxam moo ko gënal def rapport sexuel mu wax la ko bébé touche-moi ça. non non non l'homme ne pas et man. su ma sañoon sax bu ma ko wax non non non non non man su ma sañoon bu ma ko wax non ne me dis pas. man ma mayaa personnellement ne me dis pas dama bëgg nga may raayal sama dox man su ma la raayee nga siiku bu subaa damay xam ne loolu neex na la dama koy defaat jigéen t'as pas t'as pas besoin sa jëkkër ni la tu te lasses pas de tout le temps séduire ton mari tu te lasses pas eh merci beaucoup côté boobu noonu côté boobu je suis à dama nekk ci ay excès man personnellement ne prenez pas exemple sur moi parce que moi je suis dans su ma nee dans l'excès des fois doo nga sonn ci séduire man maay ki nga xam ne da nga bëgg a sol lu <laughs> rafet man maay ki nga xam ne damay uh-huh. régler sama sama sama réveil ay 4 heures du matin 3 heures du matin laaj ma pour lan la pour lan la non damay jóg dem ma débarbouiller c'est-à-dire que jigéen bëgg fraîche sama jëkkër dafa bëgg ay kottante par exemple fajar fajar dalay koot damaa bëgg su may koot fajar waaw waaw waaw waaw voilà moo tax ma ni moo tax ma ni man mën naa am bu leen jël exemple ci man parce que je suis dans l'excès extrait extrait mm-hmm. damay yeew 4 heures du matin par exemple su ma amul benn gànt c'est pas pour aller euh, faire non c'est juste pour aller ma débarbouiller dem raxasaat sama bopp dem defaat tuuti parfum parce que sama jëkkër dafa bëgg koot fajar damaa bëgg su may koot fajar mu neex dem jël tuuti cuuraay torop et ça me prend déglu ma ça me prend cinq minutes chérie dafa dem ba nekk dafa dem de couper ton sommeil frère et de mon sommeil faire soo amee sa doom soo amee doom soo amee doom n'est-ce pas su jeewee quatre heures du matin da ngay yeew nàmpal ko mm-hmm. n'est-ce pas ce qui fait que moi je me dis que il est aussi important que ma fille ou bien mon fils am na yoo xam ne dama koy def euh, loolu mooy waral góor di nekk ak benn jigéen jéki jékki takk beneen jabar wala nekkatul ak moom mais xelam du jóg ci moom danaan kii est dafa ma liggéey liggéeyu la de euh, dafa am détail yoo xam ne da nga ko faa liggéey dama la bàyyeel dafa am détail yoo xam ne faut parler des hommes insatiables effectivement les les petits détails c'est important tu sais. borom mariage in vitro bi. <laughs> non mais les petits détails sont en séduction am na yoo xam ne gars yi duñ ci bàyyi xel. Hmm. ça marque les esprits et ça te coûte rien tu as couper les oreilles ça te prend cinq minutes c'est comme si nga yeewoon di julli wala nga yeew di nàmpal sa doom wala nga saf saw jóg di sawi man psychologiquement damay jóg heure boobu pour taal tuuti cuuraay ndaxte yeewu fajar gi kottante bi pour a damaa war a fraîche pour man dama war a xeeñ neex même si on fait fekk mu enlacé la parfum bi di ko rey cuuraay bi di ko rey ban heure laa ko def dafa ma ko minuit 3 heures du matin ou 4 heures du matin laa yeewu c'est un sacrifice euh, non man je travaille pour moi heureusement. et même si et même si dama doon xëccoo damay liggéey par exemple soo yeewoo 7 heures. n'est-ce pas da ngay ñëw pour ne pas être en retard pour sa patron. pour sa patron xaaral rek xaaral rek n'est-ce pas da ngay yeewu heures du matin defaru euh, pour yegg si fii par exemple 8 heures bu dee émission 8 heures nga am n'est-ce pas tu te tout ce mal pour ton patron. mais Asamaak sa jëkkër bi nga xam ni faal. écoute waaw mais c'est pour de l'argent léegi nag man fële gërëm laa ci wut ak le fait ma am ay astuces yu ndaw yoo xam ne dama fay téye sama boroom kër parce que su dee rafet mhm. xale yee ñu dàq su dee sañse xale yee ñu dàq bu dee xaalis xale yee ñu ëpp xaalis parce que xale yi dañu teel a liggéey ñun je peux dire dañu yéex liggéey fan nga mën a defee ay affaires yoo xam ne tu démarquer am na jeeg yoo xam ne su ñu duggee ci kër donc tu fais tu te donnes tout ce mal là a takki keneen déedéet je ne fais pas que des enfants sama jëkkër dafa bëgg kottu fajar c'est-à-dire que même su ma kootoon xëy ñu ma neex moom amu ci problème parce que c'est moi man maa ko intéressé mais dafa am lu may mottalikoo dëgg damaa bëgg su may koot xet xet gu neex gi di ko laal damaa bëgg su may koot par exemple néeg bi di joole loolu ça veut mais plus la c'est en plus boo xam ne pour man sëy dafa am plus yoo xam ne da nga ko war a instauré parfois nga gis jigéen génn këram voyager kër gi da koy sentir dañ naan ah diw nekku fi mhm. mais jour bu mu yegsee teg saagam dañuy xam ne jeeg bi yegsi na par exemple du du du jeeg bi day ñëw di wax naan jeeg laa de ci ay comportement ci ay waxin ci ay ci ay bu ñu fayee kër gi yëngu dafay génn dem kër yaayam yendu fa rek waaw kër gi am na ñoo xam ne du ñu yendu karo tilim ànd bi dina ko jooy et les détails ah, gis nga ñu góor loolu mooy suñu différence ak góor mm. l'homme il est un plus un égale deux l'essentiel nous femmes on est un plus deux égale n z y on est détail sinon ñun duñu fi nekk di takk ay perruque di xool par exemple ba ci benn grain de noo koy defee ba mu rafet mm-hmm. et moi je me dis que c'est un atout juste ans pardon eh et moi et on est sortis 8 ans avant par exemple ñuy say 10 ans 18 ans soo ko dindee sama âge lan moo ci de chéri ah oui ah. et tous les jours c'est le même processus. maag ñoo bokkoon classe maag sama jëkkër ñoo bokkoon classe cinquième secondaire. Hmm? tu vois bokkoon classe euh, cinquième laa lay wax de c'est-à-dire que soo jógee sem 2 collège carrément ñoo bokkoon classe euh, moo ma yar moo a voilà ça ça veut lépp lu may def ci moom pour bégal ko moi je me dis Euh, jar na ko parce que elle il m'a choisi parmi tant de femmes. et durant dix ans mu may muñal moi je suis capricieuse. et je l'ai choisi parmi tant mhm. man temps yooyu on peut dire que xale laa woon mais moom moo ma gënoon nekk mag mënoon mënoon na am sax ku ma gën. mais il a choisi de rester avec moi j'ai un très sale caractère man li ma neex laay def su ma nee li ma neex laay def mooy. Mhm. si j'ai envie de de prendre un verre euh, dem jël smoothie ak sama benn xarit à à 19h je lui dis chérie franchement la maison ça commence a m'étouffer j'ai envie de prendre l'air j'appelle Safia ou Mami kaay dañu dem par exemple jënd ji koko damay dem jënd ji koko pare doxaat ñëwaat moi je suis dans ces choses là. da di dem jëli ma sonal su ma nee def tout ba ma def lu anormal dinaa tàggoo mais mais am na loo xam am na loo xam ne maa ko moomal sama bopp. quand je m'étouffe j'ai envie de. mais c'est ça même tu voyager sans ton mari tu voyages entre copine c'est-à-dire que yaa ak sa yaay ngeen voyager yaa ak sa copine effectivement faut essayer de de voir comment est-ce qu'on peut s'amuser. de s'épanouir grande sœur de s'épanouir moom dafa jël ni que góor danga koy séduire. ah que ci astuce la bokk. Mhm. penses-tu qu'un homme mhm. ak loo mën ci def <laughs> ci kaw suuf war nga koo war a mën a téye. man nga bëgg par la séduction man nga bëgg a dugal te duma ko nangu. mënoo ko tey. inchallah Maya ñu daal di attaquer les astuces yow lan ngay proposer euh, sa client yi en général. d'accord déjà man sama communauté dañu xam ni man dama nekk nit koo xam ni dama. bien-être personnel dafa important ce qui fait que man à chaque fois damay jaay ay trucs pour les hommes mais damay jaay loo xam ne également pour jigéen la parce que man avant tout il faut être bien dans sa peau être bien dans sa tête être bien partout pour mën a jox nit plaisir parce que imaginez quand tu as un problème par exemple au bureau soo wàccee soo demee sa kër est-ce que tu as la tête par exemple pour toppatoo sa jëkkër comme il faut xel bu dal mooy mooy li jiitu selon moi et xel dañ koy dalal xel bu daal on a tous des problèmes et que fii ba àdduna di tukki problème yi day ñëw bu jeex sa morom ñëw mm. problème bu ñëw nag da ngay jéem a vivre avec dalal sa xel xam ne sa xel su dalee ci ngay bellee ci ngay am temps diw belli ba rafet mm-hmm. ci ngay am temps par exemple def sa parfum bu neex ci ngay am temps par exemple ni ah tiens Maya mi ngi jaay benn nuisette wala benn affaire attends je vais l'acheter pour faire plaisir à mon kooku par exemple su amul gaieté de cœur su amul lu ko neex est-ce que dina jënd loolu par exemple pour dem di ko di ko di ko bégal jëkkëram mm-hmm. et maa ngi dugg un tout petit peu ci euh, Linguère sister Linguère li mu doon wax sànq que abasage bas lañ lay rayee Sénégal dañuy defar ñëpp je suis tout à fait d'accord ak yow dañuy defar lépp ba mu des nit parce que da ngay am sa doom judd mu nekk liir par exemple mu judd am par exemple di peser benn 4 kilos 500 liir ñu ñëw ah xoolal sama doom ji ah sa doom ji dafa rëy sa doom ji dafa rëy sa doom ji dafa pataa c'est-à-dire que y a yoo xam ne yow yaa ngi nekk dafa ñaaw yaa ngi nekk liir yow xamagoo déjà commencé nañ la ne la da nga rëy da nga pataa kii duñ ko boot parce que dafa pataa par exemple man je donne mon exemple quand j'étais plutôt jeune dama am sàkkal yàlla boo xam ne dafa rëy sàkkal yàlla boo xam ne bañ xaj na si mais par exemple yàlla nii la ma bindee et euh, bi ma nekkee xale sama xarit dañ ma doon tooñ naan ma sa sa jaal bi naan ma sa sa sa sa sa lii. c'est très dur ah. c'est mais heureusement que j'ai eu benn maam boo xam ne tamit elle est très sévère en éducation. Mm-hmm. elle me dit tu sais. c'est pas donné à tout le monde mu am sàkkal yàlla mun ma xoolal nit yi soo jëlee 100 kenn moo ko ciy am. Mhm. ba pare mu ne ma sa boss dafa am dafa spécial. parce que nit yi dañuy am bu sew mais yow da am bu rëy di ma jox ay exemple maa ngi nekk xale mu ne ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñi ngi wax naan dafa amoon ñaari sàkkal yàlla sëñ Babacar si gis nga reetaanam ni mu rafetee ma ne ko waaw mu ne ma xoolal yéen ñaar a nduróole comme ça jour jour boobu laa jël sama sàkkal yàlla bi daf ko force. lu ñor ma ree lu ñorul ma reetaan te bu njëkk ba dama sax ragaloon di reetaan parce que sama xarit dañ ma doon wax naan ma amoo bëñu kanam mais bi ma demee ba màgg dama jël sàkkal yàlla bi lu ñor ma reetaan lu ñorul ma reetaan je veux montrer ça à tout le mone pour dire que nii laa judduwaale yàlla lii la def ci man et je dois mettre ça valeur tu vas voir des personnes yoo xam dañu am yaram par exemple naan la du ma sol nuisette Maya bul ma jaay nuisette parce que sama biir bi dafa rëy bul ma jaay lii parce que dama am réew bugg moom suñu përëg waaye effectivement am dañ koy daw effectivement nit ñëw na ni ma Maya sër bi ma jaay rafet na dama jongo ci suuf mais dama am ay ay épaules cest dire que les gens dañuy à la place qu'ils se lâchent qu'ils laissent faire jouer le jeu dañuy tenir en compte ci ay tâches booy am ci ay cicatrices booy am et pour man c'est pas important loo noonu c'est très dangereux pour une personne de réfléchir comme ça et séduction dafa ànd ak gëm sa bopp. confiance en soi d'où la confiance en soi. Mm -hmm. séduction dafa ànd ak gëm sa bopp. Mhm. taxaw ni je suis la personne la plus belle au monde. lu ci nit mën même si on te le dit pas. si on te le dit lu ci man su ma neexee taxaw ni Maya je suis la personne la plus belle au monde faalewu ma Beyoncé et je vis ça intérieurement. nga koy dund di ko incarné nit yi dañuy gis loolu ci yow. mais est-ce du góor ñi ñooy indi complexe boobu ci seen jabar yi bu fekkee ne ñoom duñ la complimenté yow sa biir bu rëy koo koy wan sa jëkkër nga koy wan. Mm-hmm. bu dee sa jëkkër tout le temps mu lay xool du genre elle a grossi xoola biir bi xoola lii bi est-ce que du ñoom ñooy tax ba mu nga manqué sa confiance boobu. des fois c'est pas les maris des fois des fois c'est les maris mais des fois da ci am jëkkër boo xam ne par exemple danga nekk ku tuuti sa jëkkër ni loolu moo ko neex takk na la teg la ci kër gi xam nga kooku takk na la bëgg na la mais ñi ngay fekk si ci kër gi ñoo lay dénigrer naan sa jabar ji dafa lii sa jabar ji dafa sew sa jabar ji dafa pataa xoolal yow ni nga boowee ak sa jabar ji ni mu toll c'est-à-dire ku góor ki jàppale na la nee na la chéri je t'aime nii laa la bëggee mais waa kër gi commencé nañ la dénigrer waa koñ bi commencé nañ la dénigrer société bi say xarit yi ngay àndal say xarit yi ngay àndal ñu ngi la naan yoo xoolal temps yi war nga war nga naan tee bi nga xaw a jeex temps yi war nga utiliser garab bi pour mën a am yaram l'entourage il est important selon moi mm-hmm. c'est très important da nga war a ànd ak nit ñoo xam ne dañ lay aj waroo ànd ak nit ku lay ku lay ku lay ku lay rabaisser parce que pour man li Safia di wax dama koy nuy de passage nee na mayaa ànd yëpp intérêt moo ko lal mhm. julli bi ñuy julli sax intérêt la parce que yàlla daf ñu ji daf daf ñu dikk àjjana foo ñu fekk ñi ngi julli ñi ngi wér di ñi ngi woor parce que loolu la ñu bëgg xaritoo soo ngeen di ànd chaque jour effectivement Safia <laughs> Sen TV donc à chaque fois ma ànd ak Amina naan ko mhm. Amina xoolal sa lii xoolal sa lële xaw ma ban état d'esprit la Amina nekk y a des personnes yoo xam ne physiquement. Mm-hmm. tu les vois très fortes mais intérieurement non mais c'est des. Euh,